su sinanti la Sidi Barxam di xeemtu mu dox ba yenanti bi loolu la bàyyi si sàpp lu ne rasuulilaahi loolu neex na Baay Ñas ku xam lu yenanti bañ doo ko gis si Baay Ñas moom Sidi Barxam Ñas la faati waxtu saa su ne jàpp mu yees mës la tiimal wax nattu boo toppi maamam ye bokkul ak yeneen bi laajal doomi seexe xam na ñun siidi suudi bëgg nga ruy suunas muhammed jóg ko jël ci baay ñës diinem jaraxeex na suudi bëgg nga ruy ko jël ci baay suudi bëgg nga ruy suunas muhammed jóg ko jël ci Baay Ñas diineem jara xeex na su dee bëgg nga rëy suunas Muhammad jóg ko jël ci Baay Ñas diineem jara xeex ku duloon di julli mu ngi durus lillaahi bañës amul lu dul tag rasuulillaahi li mu bind ci téere jot lekk ko bi li mu bind ci jot lekk ko science bi li mu bind ci téere mu jëm ci wàllu xam-xam turu yàlla teral na ko wonewul am am li mu am ci taalibe si réew ñi ñun ñu ñuul ñi lu ëpp la bàyyi am si ñi ñu weex ñi su bëgg nga roy suunas Muhammad jóg ko jël ci Baay Ñas diineem jaraxee na su bëgg nga roy suunas Muhammad jóg ko jël ci Baay Ñas diineem jaraxee na su dee bëgg nga roy suunas Muhammad jóg ko jël ci Baay Ñas diineem jara xeex na su dee bëgg nga roy suunas Muhammad jóg ko jël ci Baay Ñas diineem jara xeex na li mu tabax ci daara dama ne si duulim ndongom bi gën ndaw mën a bind kaamin ku yaroo ci Baay Ñas su waxi nga xam ko tilim la ñaanal bi lay faw nga gis ko la xew ca maak ak la xew Medina amul benn werante moo xew ci këram ya boo jógee ci réew mi dem ci réew mi arab yi boo nuyoo ba noppi faw ñu laaj la seex mi su dee bëgg nga roy suunas Muhammad jóg ko jël ci Baay Ñas diineem jaraxeex na su dee suunas Muhammad jóg ko jël ci Baay Ñas diineem jaraxeex na su dee bëgg nga roy suunas Muhammad jóg ko jël ci Baay Ñas diineem jaraxeex na asalaamaaleykum gaay waaw ah, bu leen fanewaat Youssou du moom de Abdoulaye Sané la ku wéyaat Umar Fuuti Taal ok suñu si nanti la si di barxam di